jabet feebar la bu bon feebar boo xam ne ñi sàggan ñi da leen di rey ñi nga xam ne du ñu respecté li nga xam ne moom la jabet bi bañ dana bokk ci tàngaay yaram bu ëpp bu muy am ci yaramam te mu ànd ak saw saw mu bari guddi gi bu tëddee dina tuur ndox lu mu bon bon ñetti yoon ba ñeenti yoon tamit wàllu jabet bokk na ci nit ki su fekkee ne yaa ngi jékki-jékki moom yaa ngay jékki-jékki di miir wala ngay jékki-jékki sa yaram bi di mit sa bopp bi di métti wala na ci ñoo xam ne sax seen jabet da leen di jàpp daa bu leen daanlee dañuy crise feebar la boo xam ne suukar moo koy joxe suukar bu ëpp ci yaram nag dafa am am lu ñuy wax pancréas loolu su demee ba nga xam ne mënatut a fournir insuline bu doy moom bu boobaa suukar si nekk ci sa yaram mooy dem ba day élevé ci sa bopp yaram jaxasoog sa deret